ñu ubbee léegi ngeen xam ne bis bu mag bis bu rëy ci lislaam bisub jullit ñëpp dellusi na boobu bis ban la mooy bisub sëriñ moor Mbay Siise radiallahu taala anhu bis boobu di bisub alxuraan ak fàttaliku ko ne moom sax kenn du ko fàtte ak ñaanal ko bis boobu ak ñaanal ci réew mi ak ñaanal ci jullit ñëpp moo tax ci ndigalal xalifaam bu tedd bii sëriñ Abdou Lahad ñoo ngi ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootuk sëñ moor gépp ñoo ngi koy fàttali jullit ñëpp di ci séentu ñëpp nag di woo nag mboolem koy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah sëriñ baa ngi fàttali bu baax nag ne eh, sëriñ soxaay bu siise di jëwrinam di rakkam eh, nekku fi waaye moo ko fi teewal ak sëñ Moustapha eh, mi ngi ci biir woote bi mais mi mi ngi koy fàttali ñi mbokki mbokki yëpp di ko fàttali Eh, njabootu sëñ Mor gépp li dale ci soxna Ndey mi ci mag ba ci soxna Aminta mi ci gën a doon ndaw ñu jigéen ñi ñëpp sëriñ baa ngi leen di xamal ne bés bi seen bis la moo ñoo ma ko ànd waaye nag ci njiitul ci kilifteefu xalifa général de Mouride Cheikh Mouhamadoul Mountakha ibnu Cheikh Amadou Bachir noo ngi ñaan su borom yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem njabootuk sëriñ waa gépp ci kilifteefam yàlla dogalit sëriñ bi dara jaale ko bis bi ak ci kilifteefub sëriñam jëwrinam kilifaam sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh moom Cheikh Abdoul Ahad ak njabootuk sëriñ Touba gépp kon sëriñ bi mi ngi ciy séentu ñëpp di ci woo nag waa njaarim ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp di kilifa yi bu bu euh, joxee kàddu gi sëriñ Mbay raan moom sëriñ Mor Mbay siise dana mën a gën a yaatal kàddu gi bu baax. bis bi nag ñi ngi koy def le 31 décembre tollook talaata incha allahu taala karim kon nu déglu. sëñ mbay Ngiraan moom sëñ Mor Mbaye Cissé. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bokki julli di nuy seetaan te ñooy bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara ci ndigalal sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké mu Cheikh Ahmadoul Bachir ak ci kilifteefu sëriñ Sidi Mbacké moom sëriñ Abdoul Ahad ak ci teewaayu sëriñ Mouhamadou Moustapha Dem xalifatu sëriñ Mouhamadou Dem ak ci teewaayu sëriñ Saalihu Lo xalifa sëriñ Mor Afsa sëriñ Abdoul Ahad xalifatu sëriñ Mor Mbay Cissé ak mbooleem njabootu sëriñ Mor Mbay Cissé gépp muy ay rakam ak ay doomam ak ay sëtam ak ay taalibeem ñoo dellu siwaat fas yéene jublu ci bis bi nga xam ne mooy bis bi nga baaxoo bi ñu baaxoo defal Serigne Mor mbay Cissé di ko ci fàttaliku ne moom ni ko Serigne Mor waxee du ko ñuy fàtte waaye alxuraan moo ne fa sàkkir fa inna zikraa tanfa'ul niin yàlla moo ne dee leen fàttaliku ndax fàttaliku day jëriñ ab jullit waaye ñu di ko fàttaliku ci lam doon liggéeyee rek jamonoom lam ba mu fi nekkee ba niñ ko noppee gis ca loola rek lañ koy fàttali ko waaye fàttali wuñ ko wuñ ko ci leneen loola mooy lan alxuraan ku ko xam ku ne xam nga ko ci alxuraan waaye ku ko xam ku ne xam nga ko ci xasaay di Serigne Touba yi Xaadimu Rasuul ku ko xam ku ne xam nga ko ci addiis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ku ko xam ku ne xam nga ko ci bernde kon ci yooyu lañ koy fàttaliku alquran xasida salaatu ala nabi bernde yooyu lañ ko fas yéene fàttaliku yooyu nag sëñ Abdou Lahad Cissé tuyaaba ji ci nekk ak xéewal gi ci nekk mu yéene ko mboolem jullit ñëpp yéene ko mbooleem sénégalais yëpp ñi ci biir réew ak ñi ci bitim réew moo tax nag ñu di ci woo ñëpp ngir bëgg ñëpp fekke si ko ñëpp teewe ko bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen ñu mag bàyyiwuñu ndaw ñi ngi woo bis bi ñi ngi ciy woo ñëpp le 31 décembre di dajeeg bisu talaata bis boobu ñi ngi ciy séentu ñëpp sëñ Abdou Lahad Cissé mi ngi ciy séentu ñëpp ci saayir di ci séentu ñëpp ci baatin yàlla nañ ko fekk ci jàmm yàlla na ñëpp ñëw ci jàmm fekk ñu ci jàmm ñu def ko lépp mu àgg ci jàmm waaye ñu delluwaat ci jàmm suñ borom dimbale nañu itam bañ fekkewaat ko ay déwén yi déwén yi déwén man mii nag di wax ak yéen di man Mbay Ngiraan moom sëñ Mor Mbay siise yéen mbooloo mi ñuy wax amical dabal mbooloom amical dabal ak mbooloom sët yi jokku bokk tey dimbalante ak mbooloom maj ma hu dóor nóoréy ni di sopp yi sëriñ Mbay Ngiraan yéen ñetti kuréel ñooñu nga xaye kuréel bu ci nekk man lañu jël teg ma ci seen kanam maa ngi leen di fàttali bis bi maa ngi leen ciy woo maa ngi leen koy yëgal maa ngi leen di xamal ne gis naa seeni jëf dégg naa it seeni wax sant naa leen ci wéy li li wéy lépp maa ngi leen ciy sant gis naa jëf yi dégg naa wax yi yal na leen yàlla fay maa ngi leen di woo nag ci bis bii nga xaye man mooy sama bis man ku ma xam ku ne xam na ne benn bis laa am muy bisub sëñ Mor Mbaye Cissé kon maa ngi ciy woo kuy mbokk ku dib xarit ku dib soppe biir réew ak bitim réew ma kenn bàyyiwuma fenn ma ñenn maa ngi séentu ñépp ci saayir ak ci baatin wax naa leen ba tàyyi ne leen bis bii koo xam ne kii bis bi jërelu la nga jóg ñëw fii ci bis bi bis bu ma faatoo bul ñëw bis bu ma faatoo bul ñëw de wala boo ñëwee ñëw nga ci néew bu la jéppi ndax man sëñ Mor Mbaye Cissé laa am mooy sama tay mooy sama ëllëg mooy sama démb mooy sama tay moom rek laa yaakaar àddina ak àllaaxira kon maa ngi ciy woo ñëpp. mboolem koo xam ne yaa ngi toog ci tànt di doon ab conférencier ñu di la woo yéen ñëpp woo naa leen ci bàyyiwuma kenn kenn kenn la bàyyiwut du benn conférencier bàyyiwuma it benn jànkatu xasida waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. kon nag kaddu gi dañ koy yëkkati. jox ko Cheikh Mouhamadul Moustapha Cissé moom sëriñ Abdou Cissé moom sëñ Mor Mbaye Cissé mu wax ci turi mboolem sëti sëñ Mor yëpp. mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu fii ci kër sëriñ Mor Mbaye di siyaare suñu baay ji sëriñ Abdou Lahad Cissé ak suñu mbay ngiraan ak mboolem ñu fi teew ñëpp di leen ñaanal ñu yàgg fi loolu ànd ak wér. dañuy woote bisu sëñ Mor Mbaye Cissé boo fa nekk la 31 décembre dëppook talaata ñu ngi woo mboolem ku fi mos a jaar rek. ñu ngi lay woo ci bis bi ak sëti sëñ Mor yëpp ñu ñëw teel a ñëw jàng alxuraan bernde waxtaan ci Serigne tubaa waxtaan ci ci daara ji kenn ku ne daal di ñu noppee sëñ bi ñaanale ñu delluwaat maa ngi woo ñëpp ñoo xa képp koo xam ne nii xam nga ma nekk bitim réew wala nga nekk fii ci réew mi ñu ngi lay woo ci bisu sëñ moor Mbaye Cissé bi ndax amuñ ku dul sëñ Mor kon nag la le 31 décembre lay doon. ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wax ji nag du gudd waaye dañuy xamal ne dañoo woote yutub sëñ Mor Mbaye Cissé te man ku ma xam ci àddina sëñ Mor Mbaye Cissé nga ma xamee ñu ngi ñaan ñëpp ñi fi jaar ak ñi nga xam ne dañ doon am wëlëreek sëñ Mor Mbaye Cissé ci wetu état beeg ak ñëpp ak koo xam ne mas ngaa seqe dara ak sëñ Mor Mbaye nga ñëw ci bis bi te jàpp leen ci bu baax a baax a baax ci fànn yëpp ci zaahir ak ci baatin di ñaan nag bis bi liñ ci bëgg lépp yàlla defal na ko te ci réew mi bëgg yëpp ñu defal na ko ñu am jàmm réew mi am jàmm ni ko sëñ Mor daa bëggee ndax am na loo xam ne am na ci àddina bi sëñ Mor daa na ko wax te ñun ñu ngi koy doog a xam muy dadaa wax naan danaa ñaanal ñëpp te loolu ba mu koy wax ndekete mondialisation la doon wax sëñ Mor Mbay am na lépp loo xam ne am na ci àddina bi ñun xamuñu ko woon waaye gisoon na ko dina ko wax kon ba ko mel noonu nga xam ne réew mi lépp lépp lu mat a am ci réew mi lu de dalal ci réew mi da koy tegoo moom lépp kon bu xew bu amee xew boo xam dañ ko koy defal ñu ngi ñaan waa réew mi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp eh, ku ñu ñu téyewe eh, di wax rek ne eh, li ñu njëkk def mooy ñaan suñ mbokk yi nga xam ne ñu ngi féetewoo kër docteur képp koo xam ne nii moom mi ngi tekk fi commencé ko ci docteur Balla Mbacké mu médecin chef régional directeur hôpital Pra waaye aussi fàttewuñu waa service d'hygiène ñëpp ñu ngi leen di sàkku seenu teewaay. ñëw jàpp ci ndax kat sëñ bi ni ko sëñ bi waxee léegi rek ñëpp la fi nekkaloon euh, kenn ku ci nekk xam naa ne boo làmbee sa poos da nga fa daj loo xam téere boo xam nañ ko tuddee assurance te defe naa ne sëñ Mor Mbaye Seye ko jox te loolu du ci yemul ci ñeel ci lool rek dama ko tàmbali ngir wax ko rek waaye bari na loo xam ne nii kenn ku fi ñëw fii da nga ko fekk ba ci jawrtu bi nga xam ne néew bi fi mas a jaar moo la ko jox kon sëñ Mor Mbaye Cissé day international du national maanaam fépp la bokk ñëpp la daan ñaanalit loolu nag la ñuy ñaan képp ku nga xam ne ni yaa ngi fii ba ci daayira yi commencé ko ci daayira ma fàtt bisu sëru fay waaye 3 mars jii li gumba la waa fàttewun aussi daayira bi nga xam mooy daayira fulku bi nga xam moom la sëñ bi jox te bàyyi ma soxna loo ànd ci ak xaadim Gueye mu Moustapha mbay ñoom nekk fi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ak yëpp daayira nag bàyyiwun kenn ñu ñëw ci bis bi ànd ceeg sëñ Abdou Lahat suñu borom defal nu ci taw féex ba lépp li nga xam ne nii moom lañ ci séenu mu tengam ko tekk suñu loxo frères et sœurs en par ma voix, Serigne Abdoulahad Sissé et toute la famille de notre regretté Serigne Mormbay Sissé vous invite à la grande journée de Coran qu'il compte organiser le 31 décembre 2019 devant le domicile de feu Serigne Mormbay Sissé à Médinatoul Diourbel. Cet appel s'adresse à tous les musulmans en général et aux disciples mourides en particulier. Mais cet appel s'adresse également à toutes les autorités à commencer par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, et à la Première Dame, Mariam Faisal. Cet appel s'adresse à toutes les autorités administratives, religieuses, coutumières, aux autorités locales, aux autorités qui sont disséminées partout dans le pays, et à toutes les générations qui ont eu à faire leurs humanités dans le Dara de Serigne Mor Mbaye Cissé. Nous les appelons à cette grande journée de Coran que nous comptons organiser le 31 décembre, je le rappelle, 2019, pour revisiter le Coran, prier pour le repos de l'âme de notre vénéré Serigne Mor Mbaye Cissé, mais également pour rassembler toute la communauté éducative qui gravite autour de Daara de Serigne Mor Mbaye Cissé. Non seulement il y aura le bénéfice de, des retrouvailles, mais également nous allons revisiter l'œuvre et les enseignements de Serigne Mor Mbaye Cissé pour qu'il continue à inspirer nos comportements de tous les jours. et cela crois que c'est un bénéfice pour tous les musulmans. ñun suñu woote dañ koy jëmale ci turandoo Serigne Modou Mbaye Sy ñu ngi ci woo ñëpp leen wax ne bis bi képp ki turandoo Serigne Modou Mbaye Sy ñu ngi la ci woo waaw ñu ne ci biir réew mi ñu ne ci bitim réew ñëpp bàyyiwut kenn. kon nag léegi dañuy yëkkati kàddu ki nag jox ko ki nga xam ne moo taxawal bis bi di di ko dundal nekk fi di jëmmi sëñ Mor. ñoo ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi te weral ko muy sëriñ Abdou Lahad Cissé euh, moom sëñ Mor Mbaye Cissé mi nga xam ne mooy xalifaam. te ni ngeen ko waxee woon daal ñi ngi woo ñëpp lim bi nag day xaw a doy waar bàyyiwuñu tarixa yi benn jiital de sunu kilifa gi Seex mu Muntaxa di ñaan yàlla bàyyil na ko fi mayal na ko wér ak jàmm waaw ba lim naa liggéey sëñ Tuubaa lépp yàlla na teew ci kanamam waaw bis bi moom lañ ko dara jaale li ci teg sëriñ Sidi Mbàkke sunu kilifa. moom itam ñoom ñëpp ñoom lañ dara jaale bis bi jëmm ji naka noonu itam kër gi dafa yàgg am ay kóllëre président Abdou Diouf bind naa ko leetar tontu ma fu mën a nekk itam na xam ne président d'honneur la Alaaji Abdoulaye Wade itam bind naa ko président d'honneur la ndax mas na fee ñëw bi muy samp parti bi ñëw na ba ci sëñ moo ne ko ñaanal ma ci ba mu ñëwee ba mu waxee moom sëñ moo ñaari baat sëñ moo ne ko daa am fu ma nekk muy ci Senghor mu ne ko loolu mën taxumaa jóg daa am Cheikh Anta bëggoon ñu bari bëgg ko mënuñu ko am te léegi man nangul lan mooy parti li mu bëgg rek nga ñaanal ma keroog suñu ko yow di Ablaye dof niin nga waaw fu ne ko yow la ñëwoon nga ñëw fi ma ànd ak yow itam boo ëllëgee daan ne moor mi jëmul fenn ndax daa am foo ma fekk waaye nag ñaan moom sañ naa la koo defal loolu la seqoon nag moom ñaanal ko ne ko bul yàkkamti waaw di nuyu mbokki ñi ma bokkal ko sëñ moor gi yëpp njaboot gu jigéen gi xam naa seen kàddu dina feew Euh, euh, di jiital Serigne Moustapha Gueye ni nga ko waxee ni nga xam ne sunu waajur la di kilifa ko xam ne moo suñu waajur yi ñoo àndoon di liggéey liggéey bi di nuyu sëñ Basirou Dieng sëñ Cheikh Abdou Dieng ak sëñ Omar Sylla sëñ Mor Fall daayir yëpp ak sëñ Souleymane Gueye ah, di nuyu Serigne Moustapha Deme nga xam ne mooy xalifa sëñ Madem di sunu nijaay ak njaboot sëñ ma dem gépp di nuyu sëñ Malick di ko yëgal ak njaboot sëñ Ibrahima Dem gépp ak maam Saliou Lo mi nga xam ne sunu maam la di xalifa sëñ Mor Absa Lo waaw di woo waa Njaareem bi yëpp ni ko sëñ Bay waxee woon mënunoo lim daayir yi fi gënoon a xam daal li fi muy daayiratul Mubarak bu Seex Mamadul Basir ak daawut daayiratul Mujaawirin bu Seex Ahmadou Mbàkke nga xam ne mën njaay ko jiite woon Baye mën njaay moo ko jiite ñoo ñu ngi leen di woo ahibaawul xadim dañu ko bu Seex Moustapha mu sëñ Mbàkke soxna loo sëñ Nguura Ndoye ko jiite jox naa leen carte ak Cheikh Ibra Diaw mi nga xam ne moo yore kàddoom bàyyiwuñ ci kenn waaw président Macky Sall dem joxoon naa ko bind naa ko lettre président d'honneur laa ko def maa ngi koy déglu ak madamam bind naa lettre def leen président d'honneur ci bisub sëñ Mor bi waaw di euh, te xam ne ah, lintee diis na jafe na waaye nag fii kërug muccukaay la kërug yokkukaay la moo tax ñuy dugal leen ci ah, bu nu ñëwee itam fële laa xam ne seen njëriñ lay lay daal di nekk waaw njaarim daal euh, waa kër Cheikh Ibra sëñ ma Cheikh jëmb ñu ngi koy siyaar ndax moom sëñ Cheikh mat leenu boole woon ci koor ne ma mu ne mu ne ma kaamil yi may jàngal Cheikh la demal Abdoulaye di la ko jàngal ba tey jii bawuma ko waaw di nuyu sëñ Fallou suñu sunu wëllëre sëñ Bintu Fall moom sëñ Modou Abdoulaye Fall ñu ngi leen ko yëgal waa kër sëñ Amdi Xadi sëñ Amdi Xadi sëñ Amdi Modou Mbenda <coughs> ak sëñ Basir Fall bàyyiwunu kenn ku lim juum daal Ah, di sant waa kër gi taxaw bi ak jàppale gi waaw di ñaan yàlla yóbbu nu ci ba ci séentu lépp yàlla na ko am wa axiru daxwaana an ilhamdu lillahi rabbil alamin eh, kon sëñ bi eh, bis bi daal mi ngi noonu ñu bàyyi ko xel bu baax ci rabitatul quraan bi nga xam ne moom la moo fi nekk fii lëkkale mboolem daara yëpp te sëñ Moussa Guèye di jëwriñ ci kër gi eh, jiite ko sëriñ baa ngi leen di fàttali bis bi di ko jaarale ci sëñ Moustapha waa ak njabootuk sëñ Malick Dieng gépp di ko jaaree sëñ Cheikh Abdou muy xalifaam ak mboolem njabootuk sëñ Malick gépp ñu ko waxee daara yi jógee sëñ Malick yëpp ñu ngi ca biir naka noonu itam mi ngi koy yëgalaat kilifa yi nga xam ne ñooy kër maamam yi muy kër sëñ ma dem ak ak kër sëñ Mor Absalo sëriñ baa ngi leen koy fàttali mi ngi koy fàttali itam eh, mboolem këri diine yi fi nekk yëpp ci biir mu nekk ak ñoom biir njaareem